Euh, c'est encore un plaisir pour moi de me retrouver ici pour le lancement de cette euh, édition de Wër Sénégal. L'année dernière, nous l'avions lancé ici et ça a eu un franc succès. Euh, cette année, nous avons la chance et l'honneur d'avoir à côté de nous notre frère, notre ami, le maire de la ville, Dalasila, un, euh, un sportif émérite qui est venu dans sa famille. Euh, si je le dis, c'est parce que je le sais, pour avoir euh, pratiqué avec lui, pour avoir vécu des moments intenses dans le cadre du sport, aussi bien dans notre quartier qu'au qu lycée Malixi et même à l'université. Donc, euh, me réjouir de, de, cette initiative, de ces jeunes Thiessois qui ont compris que le sport est un moyen d'éducation, mais aussi un puissant moyen pour fédérer les, les, les ardeurs. Aujourd'hui, au-delà de toutes les considérations, nous avons juste vu des jeunes qui ont envie de faire leur passion et qui aujourd'hui, avec des coureurs de la sous-région, des coureurs du pays, sont venus pour ensemble faire cette randonnée, d'abord pour le sport, mais aussi pour la culture, Parce que partout où ils vont aller, ils vont amener les valeurs de Thiès. Partout où ils vont aller, ils vont découvrir aussi d'autres cultures pour pouvoir, dans le cadre euh, de l'unicité, faire de ce Sénégal un seul pays. Euh, li am solo nag mooy suñu mbokk gambien yi ci bokk ci contexte bii nga xam ne euh, moo am ñun ay comme tey li ñuy def nii ci wàllu sport la sport moom lu boole nit ñi ak lu leen defar seen diggante ak lu yaatal jàmm rek moo ko jik spor yaakaar naa ni jàmm boobu moo waral ngeen mën a bàyyi ko foofu ñëw ba fii ak di espérer waat delluwaat ci jàmm kon euh, ñu ngi ñaan Gambia euh, jàmm dellu fa euh, jàmm pour askanu Gambie bi yëpp ndax Gambie ak Sénégal ay doomu ndey lañ mas a doon lu ci bëri nag daf leen nar a def doomu baay te gënul yàlla na suñu borom dogal diggante bi gën rafet ba nii ngeen ànde tey ci wàllu sport euh, gambi ak Sénégal continuer ko ànd tamit ci yeneen i domaine li ci des mooy ñu souhaiter leen yéen ñëpp ñiy participer comme organisateurs yi suñu boroom vraiment mottali li ngeen di def mottali yéene yi te nag que le waaw ku ci nekke nag laaj naa la li nga bëgg nga ne nga ne victoire nga bëgg sama mbookaay yi jógee Gambia sax ñoom tam nee na duñu bëgg a gagné. dañu bëgg win <laughs> waaw léegi nag maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp ku yàlla tànn daal na gañe na gañe te gañe ci wàllu sport te gañe ci respect wu fair play kenn bañ a jéem a galgal sa morom parce que ci welo yi am na ci am na ay façon yu bëri ay am na ay caxabal tamit yi am ci làmb ji am na ci ci ci dawal welow de boo yàggee seetaan ci cyclisme rek xam ci dara am na tamit tequm njalawle yooyu yëpp am na ci biir waaw waaye <laughs> nañ ko def rek ci dal ta xam ne nekku leen ci benn dëkk biir dëkk kese comme da ngeen di traverser yenn zone yi am na yenn xew-xew yoo xam ne bu fa amee xëy na du gën je pense que kenn ku ci nekk tibbe ci moom li gën a rafet ak effort yi nga xam ne moo ne ci moom tibbe ci moom le meilleur pour essayer de gagner vraiment par yoon bi en persévérant ak yooyu loolu moo gën a am solo yàlla na suñu borom gindi leen ba ngeen àggale ko